li am solo rek lenn la am mooy man man li ma wax li ma doon wax rek démb ak bërki démb waxu professeur Cheikh Omar Diagne bi laay waxaat rek ne Sénégal bu fekkee am na violeur benn violeur moo fi am bu leer muy violé ñëpp gis ko muy violé que violé na constitution yi violé loi yi violé na lépp benn violeur boobu laa fi gis man mu leer ma ne kii moom ñeme naa waat ni violeur la moom donc kon ñun bu ñu waree jóg jóg jot na parce que man dama ko yàgg wax man bi may wax jóg leen du tey léegi nag li am solo ba Sénégalais yi xam ko mooy ndax Sénégalais yi dañu war a seetaan Macky Sall bu war fee nekk mel ni buur quoi comme ni ko grande dame di waxee ndax dañu war a seetaan Macky Sall ne moom moo ñu moom ba lu ko neex la lay def wala lu ko neex la bëgg a doxalee la police police ci boppam Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal Aly Ngouille Ndiaye lu ñu ko mën a waxal quoi qu'on puisse dire lu mu doy waar doy waar sax moo tane Félix Antoine Diome mi nga xam ne neenu baxal laa ko tudde boobu boobu mel nga mën a jàppee humilier police comme ça élément bip mu amee solo ci police nga xam ne ñoom ñooy maanaam last recours nga xam ñooñu bu ñu jógee rek ay intervention yu am solo moo leen tax a jóg ngay ni wàcce ñu dem ci këru benn politicien ba lañ dóor ay briques ñuy daanu ñu den kookali quoi maanaam woyee wane faayu police wane faayu gendarmerie quoi gendarmerie lu tax ñu récupérer ñu récupérer euh, enquête bi c'est loxo gendarmerie lu tax lu tax parce que xam nañu ak gendarmerie dañu am fulla état yebul gendarmerie ku leen topp dossier bi day dem ba day leer ñu nangu ko ci seen loxo donc je pense que yooyu na na askan wi jàmm yoo xam ne jàmmaarloo moo koy faj te jàmmaarloo moo Macky Sall nag duñ ko bàyyi man du ma ñooñ taxaw naan ay nañ bàyyi justice def liggéeyam Sénégal amul justice boo amoon justice ñun ndax xam nañu dara du ci fekk dara du ko ci fekk mais Sénégal amul justice fii ay voyous ñoo fi nekk état bu comploter ci kaw askanam sàcc pétrole sàcc gaz say doom di fooy réew mi say frère di fooy réew mi ñu yàq réew mi yëpp xam Aliou Dunguru Sow li mu def ñëpp gis nañ ko léegi nag dañu bëgg xam ndax Sénégal dafa am doomu koo xam mooy doomu Sénégal ak keneen ki di di koo xam ni moom mooy ku tekkiwul dara ki ndax ñun nañuy nangu loolu ñun la majorité de cette population là donc ñu ngi def appel di woo askanu Sénégal yëpp ne ñun dañu jug taxaw pour jàkkaarloog Macky Sall ne ko du laal Sonko en fait c'est ça le discours il faut pas ne wiiri du laal Sonko wala su ko laalee moom bu tëddee du nelaw dina xam ne laal na lu mu warul laal parce que Sonko du Karim ko bëgg ñëw rek buraaye ko buraaye ko Macky Sall dafa ni na mag ñi xam ni Macky Sall moom du am wujju day toog ci pouvoir ba mu neex mu jox ko ko neex mu toog képp ku opposé jàkkaarloog moom mu ne dina la yàqal dina la rey tey da ngay dee loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñuy woo toute la population sénégalaise rawatina la jeunesse sénégalaise ñu taxaw waxuma Casamance waxuma Tambacounda waxuma waxuma Louga waxuma euh, Thiès wax région ñëpp laa wax ñu jug taxaw jàkkaarloog Macky Sall ne ko day arrêté te day dellu ginnaaw c'est que loolu la quoi day dellu ginnaaw te ñu démystifier ay kaso ki prison policiers ñoo ñu gën a sonn. gendarmerie ñoo ñu gën a sonn armée bi ñoom ñoo ñu gën a dee donc ñun nañ démystifier ay kaso ak ay prison ndax Sénégal ndax xeex Macky Sall yàlla la loolu na ko Sénégal yi xam xam ne jaamu yàlla la te duñ ko bàyyi muy jàpp Sonko di ko toroxal am na ñoo xam ne kenn du leen toroxal et puis di ko jiñ ay viol ñàkk fayda yi quoi te moom mooy le plus grand violeur de tous les temps depuis qu'il pouvoir donc loolu mooy message bi di jégal ñu wasaar solma rasulullah